noonu ay promoteur la boo xamante ni xale la waaye Sénégal ba mu nekkee def na fa liggéey solo ma nga ànd ak wulli affiche ñaar ñi mu àndal tëgg na leen ci combat ñoom ñaar ñu ñëw fi def ci liggéey bu am solo mu ànd ak suñu papa Lamine Samba nga xamante ne vraiment mu ngi senegal di liggéey liggéey bu am solo ci wàllum média ci wàllum télé Lamine sàmba suñu papa ji ma nga noonu ànd ak Ngagne Demba Ngagne Demba nag boo ko déggee mooy borom géejawaay ngañ dem képp koo xamante ni mooy mbër géejawaay wala ngay artiste géejawaay moom ngañ dem ba mi moo lay wat. wul el ndeysaan xolama liiru jaan doomu nday wul nee noonu xolal suñu papa Lamine Samba ndeysaan xolal ma jamaïcain la mu sañse def na costume def cravate macha allah xale baa ngi noonu hey jamaïcain cey làmb grand Cheikh Samba ngi noonu moom kenn moom ndeysaan lii mooy làmb ndeysaan jamay kee ngi noonu ndeysaan nañu dék micro bi déglu taataan ko bi la am si baskel doon bi jël benn yoon jàkkaarloo am fi tey bu nga dugg see jam lan nga yëg waaw kontaan rek di wax na ku yokkul yaa wàññi lamb dañ war a wane waat leneen bees bu lu fi amoon rek la ñuy war di wane ndax place ko xam ne place bi yokku la place bi yaatu la waaye ñu yaa ngi yegg si nag ñooy wane ni fii lu nekk xañ na fa ba pata lu ne mën na fi am face à face war na fi am te place soo koy wan askan wi da ngay xool lu ko jar dina tax nit ñi sabarkat yi dégguñu micro yi ñu ne ba indi combat bu mel nii sabarkat yi dégguñu micro yi de tëggee combat gi tey ku fi ñëw xam ne nalaw loon parce que covid bi ñëw na ñu aj ko wax dëgg yàlla tey ku fi ñëw xam ne ah, lamb amal na beneen xar-xaram te liggéey moo koy wane waaye sant yàlla rek gërëm waa Gambie gërëm journaliste yëpp waa Fësal waa Gawjo maa ngi nuyu ñëpp di nuyu képp ku journaliste fii ci réew mi di wax ne lii yëpp bu amee journaliste yi la ñun li ñu am rek mooy génne sama xaalis tëgg lamb li si des dañuy bàyyi ak liggéey bi ñu ngi ko sottal di nuyu sama staff bi nekk fii yëpp di leen di ñaanal jàmm xewal sutura di wax ne askanu Gàmbi man aw ma seen fay waaye tëgal bu ñu am si maa maa maa leen raw ci côté boobu. dina mel ni ku gisee ba nasaandoor yi. alhamdulilah waaye jëm su ma def nii dafa doy waar ñaari mbir yàlla dëggaloo diggante Baye Mandione ak ak Baye Mandione. waaw ñun sama xarit lañ. ma indi woon leen ba léegi ñëwagul ci. tey ma ànd ak ñoom ànd ak ngañ Demba borom géej waaye sama xarit. ànd ak ñoom sax Samb Père Lamine Samba. diini wasaare ak ñi nga nekk Sénégal yëpp ñëw kontaan nag lañ ciy am. ñeen tamit ñu ñëw fekk leen ci ñoom liggéey liggéey bu am solo. kon yàlla leen yàlla defal jàmm baax na ay ca jamen ma nga noonu di dugg si demal waaw Babou Ngomay sa baay boo tëggee wàcc nga Momo Ngom waaye sama papa jaagay maye ndeysaan ndeysaan waaw waaw na loxo Samba ngi noonu Lamine papa boo ko defee amoo loo sol ndeysaan est-ce que moom Lamine Seydou tàng na Lamine est-ce que moom du arrêté wul. non booy bi kay laa ilaaha illallah man tubaarikàlla macha allah. waaw booy bi nii la mel. baayam la yàlla ko yàlla fal cat. waaw bu ngomay baayam yàlla ko yàlla fal cat. yàlla ko yàlla fal cat. yàlla ko yàlla fal cat. ay ca. ndeysaan